ce matin euh, malheureusement yàlla dafa def mu am ba benn auto horaire mégeeg bi moo daanu ci yoon bi ci kaw loolu euh, mais alhamdulilah ñu ngi gërëm yàlla parce que amu ko dee mais am na ay gaañu gaañu ci veyu julli bi nii. ci kaw loolu lu ñu doon wax rek barki démb loolu moo ñëwaat nii lu tax lii yëpp ñàkk yoon la ñun Sindian amuñu yoon mais boo koy waxee ñi dañuy gis leneen yaa ngi gis suñu oto yi ñu ngi daanu parce que yoon yi baaxul amul yoon bu baax yow mi doon jógee pour egg si fii yàlla rek a xam. ñu ngi ñax état bi mu xool ñu mu xam ni ki foo ñi bokk na ci Bignona mu xam foo ñi bokk na ci Sénégal mu xam foo ñi bokk na ci teritoire bi nañ am xalaat ni ki foo ñi ñu ngi souffrir instant yi tey fu mu toll nii oto amatul seul horaire boobu noonu bu doon daw mégeeg pour andi population dem def seen besoin Bignona pour delluwaat tey daanu na faute de yoon yoon ñuy defar benn yoon baaxu ci ñun ba tey mu ngi nii ñu ngi souffrir on souffre on souffre si on parle su ñu waxee nit ñi gis ni ki ñun ñu ngi yàq na nguur gi xam état bi laay wax na xam ni ki foo ñi dafa bokk Bignona nañu defaral yoon nu mu gën a gaawee parce que sinon cela ñun bokkatuñu Bignona fu mu toll nii pour accès Bignona Signan sax yàlla rek xam loolu moo tax ñu wax ni patient yaa ngi ci biir y' a énormément de blessés à ñun patient ngi ci biir gendarmerie mu ngi ñëw de def constat euh, te ci suba si oto yëpp population yëpp ñoo génn si pour soutenir gars yi fu mu toll nii loolu mooy suñu problème.